Thank you. mbokk internet ni ma metti ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñu topp dañuy ñëwaat ak yéen ci actualité actualité bii nag di concerner toujours groupe Futurs Médias foofu nag xam ngeen ni amaan nañ beneen cas wu Covid 19 ki ko am nag moom mooy comédien bi nga xam ne moom mooy Kouthia depuis nag boobu yéen a ngi dégg information yi nga xam ne am na ci waaye nag leneen lu xew foofu eh, ki nga xam ne moom mooy directeur bi di Youssou Ndour dafa newoon dafay testé yëpp maanaam dafay jël ñëpp defal leen test ngir xool ndax amuñu feebar bi nga xam ne moom mooy Covid 19 xam nañ jàngoro la ju gaaw a wàlle leneen aussi lu ci am dañuy wax ni que am na benn directeur boo xam ne dafa nekk ci biir télévision Futurs média maanaam ku bokk ci dirigeant yi koo xam ne depuis boobu dafa daal di disparaître kenn gisatu ko mu ñëw fi nga xam ne moom mooy groupe bi loolu nag daal di créer panique fi nga xam ne moom mooy groupe Futurs Médias ñëpp di yaakaar ne kooku mën na am mu am doomu jàngoro ju moo tax ñëwatul ci information yi ñu jot nga xam ne waa Dakar Matin ñoom ñoo ko daal di fësal directeur boobu dafa nekk ci benn résidence boo xam ne résidence secondaire am la ngir toog fa nag di information boo xam ne ñi ngi co ñi ngi ñu ko wax ci groupe Futurs Médias nga xam ne bu yàggul dara la ñu dégg ni ki nga xam ne moom mooy Samba Sine alias Kouthia dafa am li nga xam ne moom mooy Covid 19 ba daal di contaminé cinq personnes yoo xam ne amoon na contact ak ñoom continuer leen di topp limametti.com ngir am information yi bu leen fàtte à chaque fois cloche notification moo leen di mën a permettre ngeen mën a am xibaar yi foo leen mën di toll ñu leen jox rendez-vous yoon ci biir limametti.com ak yeneen actualité